salaamaaleykum salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information Dakarnet c'est toujours un plaisir di ànd ak yéen ci seen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd talent à l'honneur et d'ailleurs talent à l'honneur tey mooy nekk premier numéro désormais quinze jours bu jot dañuy tànn benn artiste boo xamante ni euh, kenn xamu ko ci Sénégal xam ngeen ni Sénégal dafa bëri ay talent donc ñun dañu décider jël ñi nga xamante ni xamuñu leen pour dooleel leen promouvoir leen te également dañuy nekk ñi nga xamante ni dañoo am talent alors yéen a ngi ko doon gis ci suñu bi ñuy bi nga xamante ni mu ngi lëmbee àdduna jamono ñu euh, ñu nuyu dama leen di bàyyi ñu nuyoog li ñu yor bu neex bi ñu yor mooy li nga xamante ni moom la ñu yor ci baat bu neex ci way ñu daal di koy ubbee émission bi bu ko defee ñu ñëw la muy ratu ku ko yaakaar doo man ni soowu ñëwa jur na soowu waaw waaw bëyëg la muy ratu ku ko yaakaar doo man ni soowu ni wajur na soomu waaw waaw jaljali waayu waaw yaa di cin kumba boo takkut njaboot gi dem bala fee yaa di cin kumba ndaama jaljali waayu waaw waaw yaa di cin kumba boo takkut njaboot gi dem bala fee Merci beaucoup. Hein. Comme j'ai l'habitude de le dire souvent, et j'ai tendance quand même à le souvent, que la banlieue dakaroise est le carrefour des talents. banlieue bu talent yi fa la ñu jugee mais ñi talent lañ ci biir talent yi gis ngeen ah, yaa diggéen Kumba gis ngeen way bi nga xamante ni ba ñu ko ñoom ñu ngi koy way mais morceau bi ba ñu koy génnee daanaka ñoom judduwuñ mais moo leen gisee ni ñu koy woyee doy na waar et gën a doy waar ah, dinañ ko waxtaane léegi-léegi balaa ñuy sori dama leen di bàyyi ñu nuyoo maa ngi lay ziar Adams borom Pikine maa ngi lay fay Ouzin mhm. di la jox sa wàccuwaay mhm. di siyaar kull kuy seetaan lii waaw di siyaar aussi waa Pikine gi ma jógee waaw di nuyu sama yaay ak sama papa ñi nga xamante ne ñoom ñoo ma dooleel ñoom ñi nga xamante ne ñoo ñoo ñoo ma ñoo may ñaanal parce que bu ñu ñëwoon déedéet rek lii yëpp du yemb waaw daanaka damaa commencé rek ñu ànd seek man gunge ma ñaanal ma ne ma acca fexeel ba buñ ne bu ëllëgee buñ ne waaw xamoon nañ ni fii lay mujjee quoi fexeel bu ëllëgee nañ ne waaw gonga moo tax su may dem damay gën a firi damay gën a fiera di wéy ak li may li may li may def incha allah. Mia ziar Touré. bàyyi la nga nuyoog mbokki internet Dakar ne di. Ah, maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu képp kuy seetaan émission bi. di nuyu sama yaay ak sama papa. ñoom ñi ma permettre ma yegg si ba fii. di leen remercier bu baax di remercier tamit invité bi ngeen ñu invité. parce que opportunité la pour ñun jeunes talents yi tamit ñu wane suñu bopp. donc euh, merci à vous. d' accord alors euh, les talents sont ci seen émission bi nga xamante ni mu ngi tudd euh, talent à l'honneur alors Adama. Mhm. ñun dañuy jékki rek gis la. ci benn comme li nga def nii nga def ko est-ce que jàppoon nga ni bi nga ko doon def yaa ngi toog si salle yaak Mia ngeen mhm. di foo mhm. est-ce que jàppoon nga ni dina am ampleur bi mu am ni ba Sénégalais di ko partager fu nekk ñu koy TikTok di ko statut yeah man da avant tout ma ne ba pare. Mhm. parce que yàgg nañ def ay vidéo mhm. mais vidéo bi lim ñu apporter beneen vidéo andi ñu ko. Mhm. dëgg lañ ñun ñu wër dañu defee vidéo dañ koy béggee dañ koy bëgg. mais dañ def vidéo bii nag yàlla gën koo yaatal yàlla gën a def maanaam Sénégal yëpp ne gongo quoi. waaw loolu loolu sant yàlla mbiru yàlla la. bañ koy def xaar ñu si woon lii. te loolu sax taxul woon ñu toog ci salle boobu noonu. Hmm. sama rakk la sama xarit la sama lépp la bu waree bind texte dafa naan ma papa foo nekk ma ne ko maa ngi kër ga mu ne maa ñëw damaa war a bind texte man ko ati ñëwal ma jàpp si. Hmm. mu ñëw ñu nekk di bind di foo ensemble man ko pourquoi pas ñu def benn vidéo nii lañ dikkee ñu def vidéo après gars yëpp jëlandoo ko mu doon loo xamante ne lu neex la macha allah. Hmm. alors bala maa bala maa ñëw ñëw Cimia ndax tuusam tuusam ci si way bi dafa dafa extraordinaire donc alors li ma bëgg a xam mooy Adama pour sénégalais yi nga xamante ni xamuñu la Adama moom mooy kan boo doon présenter sa bopp waaw Adama mooy mooy mooy jëmm ji toog ak yow Adama mooy euh, mooy doomu pikin bi nga mm-hmm. xamante ni taalibe la mm-hmm. Adama mooy mooy ki nga xamante ni ku bëgg lu muy def la mm-hmm. ki ki jël musique boolewu kook dara ki jël musique def ko maanaam léppam. kañ nga commencé way. Mm, ba ma commencé foowee musique c'était en 2009. Mhm. waaw di déglu son son son papa ba mu ba mu dugg ma. Mhm. ma koy woyante ñëpp di ma woowee Thione Seck. Mhm. xam nga affaire yi di dem di woy affaire ba ba ma commencé am sama touche bopp commencé bind samay sanganu bopp di di pour ñi nga xamante ni xamuñu la boo ñu doon présenter sa bopp yow yaay kan. ak kañ nga commencé way ban âge nga commencé way parce que laa lu ma lay gisee xale bu ndaw nga <laughs> d'accord ñu ko si bi. ok donc euh, bi may commencé way. Mhm. yàgg na yàggul. Mhm. c'était presque en ci laa mhm. commencé di wayantu suñu école. may def ay vidéo noonu. si noonu laa commencé suñu école ma xaw fa am. nit yu bari commencé ma xam. après si laa demee ba xamante ak Adama. parfois su may bind ay textes may ñëw di ko ko woon. genre yooyu noonu. Mhm. donc yaa nag bu du kenn benn xale la buy jàng rek. Mhm. mën naa ne way bi don la. Mhm. yàlla moo ko def donc may jéem a. doo géwël quoi en fait doo la. ñeeño waaw d'accord. donc noonu rek la ma dikkee c'est venu naturellement. donc ma koy boole ak jàng bi parfois may jàng. ba yàlla def d'ailleurs ren am bac. Euh, nii la demee félicitations d'ailleurs félicitations bac bi dinañ si dinañ si ñëw alors Adama mhm. euh, pour euh, avancer un peu si waxtaan bi yow doo géwal comme ni nga ko waxee sànq way bi dafa la dugg mu mel ne passion bi moom moo la dugg mhm. mais dañu gis ni morceau bi nga xamante ni yaa ngi di ko way euh, ça date pas d'aujourd'hui donc moom ma mag moo la mag ah moom mag sa amaana suñuy waajur ah donc way boobu lan moo tax nga utiliser morceau bopp di ci fo du mhm. ma su ma gisee ki tax ma dugg si musique a jël mooy di ci foo quoi. Mhm. xam nga ma koy way am benn benn message bu naas bu ñu ciy lancé. Mhm. mu ngi boo déggee way bi mi ngi naan béy ak soow mu ne ñeewa jur na soow ma baawaan jal jalil quoi. Adama yow Adama yow Adama yow <laughs> dégg de yow li ngay wax nii yow ah nga ni ñeew ba. <laughs> ñeewa jur na soow ma baawaan jal jalil Mm-hmm. xam nga maanaam mu doon li nga xamante ne lu ma neex la bu ma koy déglu maanaam dama naan tepp tepp a gën yu ret ci yoon wi ñu nekk quoi mm-hmm. di dox nànk par nànk bu yàlla nee waaw rek waaw la bu yàlla nee déedéet déedéet mm-hmm. te tamit di dox doxinub naat nekk ndaw xam wa xaar yàlla ko waaw nekk si lu ñu war a nekk bu yàlla nee jot na rek waaw ñu génn ñëpp xam ñu incha allah alors a ndax au delà de traditionnel bi nii bi ngeen ubbee nii ndax yow en personne si traditionnel ngay activé wu wala juste da ngay yëngu ci moderne bi nga bëgg a concentré wu pour l'instant Euh, damay def traditionnel. Mhm. en même temps tamit damay jàng musique moderne. Mhm. donc damay bëgg a boole ñoom ñaar ñëpp parce que mën nañ la soxlawee fu nekk te doo xam musique bi ba fan la lay yóbbu. Mhm. doo xam tamit ban dëkk nga mën a dem soit di nga daje ak ñoo xamante ni. musique traditionnelle moo leen di gënal. nga daje ak d'autres yoo xamante ni musique moderne moo leen di gënal. donc va falloir que ngay jéem a bosser ci entre ñaari côté yëpp. ba fu ñu la wooree nga mën fa wuyu. alors seen seen ànd yéen ñaar ci ci la jublu ku nekk dafay da ngeen di taxawul projet pour yéen ñaar liggéey si en avance continuer wala juste après dangeen di da ngeen di booloo pour benn morceau après ku nekk jëm sa yoon Adama. waaw Mia man dama naan c'est ma moom mm-hmm. sama rakk la sama xarit la. Mm-hmm. xam nga. Mm-hmm. bu ñu waree def sound dañuy def sound. loolu loolu sénégal yi ñoo koy bëgg paraaw bi dañ koy def. mais bu waree def sound boppam. dafay def sanwanu boppam bu ma war a def sama sama sanwanu mais l'essentiel mooy on travaille ensemble mm-hmm. duñu du ma ko bàyyi mu dem moom mm-hmm. tamit du ma mu dem dinaa ko gunge si yoon bi amaan na même bu fekkee benn fan la sax jiitoo naa ko ci mm-hmm. xam nga mais li ma bëggoon wax mooy en fait sénégalais yi gëw leen bàyyi ngeen di parce que voilà affaire yi ngeen jot a def nii dafa extraordinaire oh. parce que moom tuusam dafay dafay refléter un peu Daba Seye d'ailleurs boo leen seetloo bi nga xamante mooy jaaga mhm. voix Daba Seye ni muy résonné ci tonalité voix ni muy dégagé mhm. ci commentaire sax ak man si li ma am comme impression mhm. dafa dafa dafa dafa ngeen def a ba si kanam après pourquoi pas après ngeen ngeen ngeen parce que mbooloo mooy doole quand même Mia loolu wax si loolu bàyyi Mia tontu ah effectivement Mia nag tubaab la de ni muy waxee <laughs> effectivement vas donc dañuy toog di woyandoo. mais teewul parfois ku nekk di nga am sa inspiration mm, boobu. ngay bind sa ay son. Mhm. soo paree mën nga ko def. tey moom mën na am son boo xam ne moom moo ko war a def mais su bëggee ku ko këral mën na ma woo. Mhm. mën naa ko si jàppale teewul tamit mën nañoo dem ba am son boo xamante ni ñun ñaar ñoo ko bëgg. Mhm. ñu def son bi duyoo ko man ak moom. Mhm. donc euh, moo ngi noonu. Mhm. parce que dafa am ku ma doon signalé si ñun bi ñu dugalee seen vidéo bi ah d' benn soxna. dafay dafa ma message ni dafay dafay waajal mariage am. ndax mën na leen a am. <laughs> donc loolu dafa ma jox idée à que ma posé leen question est ce que euh, pare ngeen pay. pour jouer live yéen ñaar. à l'avenir loolu day ñëw. non pas dans am talent da ngeen ko war a wane. loolu loolu foofu. pour ngeen jouer live en fait. waaw dañ fee nekk pour sénégalais. lu ñu lu ñu bëgg rek war nañ leen ko jox quoi. par mhm. par mhm. ngeen pour mayaat ma benn affaire bu ndaw quoi. <laughs> <laughs> vas-y yëkkati ñu xool. ni bëgg naa ko mbëggeel goo xam ni sonal na ma yaay lott naa nelaw dama tiis saa yu ma gumminto naa ko nañ ma ko may man mu doon sama coono di ma sëyal chéri gént naa bi nga ñëw sunu kër am fi nekk te am doom am fi nekk sëyal ma fi ba xëy teral fi say naa ay ku la gis man nii ma sonn naa torop <laughs> ñu la sonal naa torop si solo belle parole de Adama Mia gis nga comme ni ma ko waxee rek talent à l'honneur moom ku amul talent nag gars yi na leer ku amul talent bul ñu sonal. alors ñu continuer doo géwal yaa ngi woy woy géwal ah <laughs> comme quoi que ni euh, passion bi moom mooy compter alors xam fi ma bëgg ñu waxtaane yaa ngi woy woy coon donc naturellement ku fonk ku bëgg waa li ngay doon. yan eh, yan rapport nga am ak Wally ndax jot nga ko gis ndax jege nga ko. pour à que mu dimbali la mu jàppale la si sa carrière. xam naa xam naa ñu ko xam. Mhm. jotaguma toog ak moom. Mhm. te xam naa ni incha allahu rabi dinañ toog. parce que mhm. ku ñàkk ki ñaan la. olof Ndiaye nee na ku ñëpp tuf li nga tooy. te foo ni waale rek maanaam bàyyi faal maam bu bu ñuy wax rek. loolu loolu dalay dalay poussé à ce nga dem beer moom. xam nga moom sama magu bopp la. papaam moo tax may def li may def nii. tôt ou tard dañuy toog te buñ toogee dinañ waxtaan bu waxtaanee xam naa ne na ciy jàpp bu mhm. baax a baax parce que loolu lañ soxla mhm. nekk xale nekk ci sa roko di def say sanwoon dëgg la naas la naan ñu sax doy na bind gi doy na kañ génn xam nga mhm. mais lu jot yomb quoi incha allah rabbi nañ def la tout ba toog ak suñu frère bu baax boobu noonu yàlla na ko yàlla bàyyi dooleel ko dëgëral ko mu gën a wéyal lu mu nekk di liggéey nii xam nga waaw affaire yi maam mu gën a wéy alors Mia yaa ngi doon wax sànq ni euh, da nga euh, t'as eu ton bac quand si année bi nii ñu lay féliciter bu baax a baax ndax ça a été un peu dur quand même ñi nga xamante ni jot nañ am bac euh, macha allah ay jàmbaar la ñu ko amul tamit yàlla moom moo ko dogal alors naka ngay allier musique bi ak way bi ndax say parents d'accord nañ ci bàyyi la nga def musique bi surtout war ko boole ak jàng bi. donc concernant samay parents. Mm-hmm. ñoom étude la parce que ñoom dañu bëgg affaire u jàng mhm. day affaire u musique bi toujours day compliqué su ma waree suñ ma mhm. soxlawee fenn wala genre yooyu noonu mhm. foog may jéem a négocier ak moom pour ñu mën ma bàyyi may dem parce que milieu bi dafa nekk milieu boo xam ne dafay xaw a dangereux surtout nga nekk jigéen nekk xale donc te dafa bari ñoo xamante ni juguñu aw ñu ay intention yu baax parfois dañ lay woonaan dañ lay jàppale alors que li ñuy def yëpp nekkul lu dëgg ci ñoom en fait euh, dañuy ragal daal. loolu rek la. mais toujours nag ñoo ngi xool si li mu bëgg ñu ma si jàppale macha allah. et je les remercie de passage. Adama en fait bëggoon nañu waxtaan bi gën a yaatu. en fait lan mooy euh, projet yi nga xamante ni moom moo jàmp. et puis lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoom ñooy que ngeen teg benn single bu dëgër Sénégalais yi promouvoir seen single boobu affaire d' autorité damay mm-hmm. mm-hmm. laa bokk mm-hmm. di siyaar kull kuy autorité ku nekk foofu noonu ay sama ñoom yaay ñoom tata Aïda Sogo rawatina maman Aïssata Dieye mi nga xamante ni moom lu ma lu ma def neex na ko xam mu lu mu gis lu baax lu ne rek fu moom pour pour pour man la ma ñoom nag ñu ngi may ñu ngi may dooleel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax bàyyi ma benn yoon parce que ñoom samay waajur lañu xam nga dañ daan ànd ak sama sama bàjjen jëm si yàlla Fatmata Matar yàlla na ko yàlla yërëm waaw moo tax ñoom ñu jël ma doomoo ma heure bu ma leen soxlaa heure bu ma leen bëggee gis aw sens interdit si ñoom damay dem gis leen normalement d'accord di remercier aussi sama sama tuuti yaay xam nga mm. di invité ñëpp pour ñu ñëw jàpp si am na team Adams bu taxaw du tay loolu mais est-ce que waroo mooy suñu numéro WhatsApp boo ñu mm. boo ñu foofu noonu rek après incha allah la boole ci lépp mm-hmm. xam nga maanaam gaa ñu si jàpp papa di remercier aussi sama maman tuuti yaay mi nga xamante ni moom tamit bañaluma dara. Mhm. di wax waa team Adams ñëpp ñëpp ñëpp luñ doon def benn. nañ ko noonu. noonu lay demee incha <laughs> allah rabi parce que moom waaw dem ba ko li ma a wéy a looy tëjee looy wax fan si xarit yi. Euh, damay remercier ñëpp. Mhm. di leen remercier yéen tamit ci invitation bi. Mhm. di remercier samay waa kër ñoom ñi ma permettre may ñëw yóbbu fii mhm. ak sama rakk bi ma ondal jeestu mhm. mhm. maa ngi koy remercier bu baax tamit ak sama rakk yu nekk suñu kër dañ may sonal tey ñu bari dañ doon naan ay jarul may ñëw parce que première fois la mënoo def vidéo démb tey ñu ñëw <laughs> merci mais toujours dañuy doon di wax sama papa bàyyi ko mu dem muy Baby Facha ak Magui donc euh, dama leen di remercier di remercier sama yaay tamit jàpp na si bu baax muy sama waa kër Badiane mm-hmm. waa Grand Dakar Badiane Mousli uh-huh. maa ngi leen di remercier ñoom ñëpp tamit parce que toujours dañuy jàpp ci sama communication mm-hmm. te loo bëgg rek bu ñu xamee ne da am passion ñoom na nga nangoo jàng rek parce que suñ soo nangoowee jàng soo waxee da nga bëgg def dara dinañ la si jàppale ba mu gère mm-hmm. donc moo ngi maa leen di remercier bu baax ñoom tamit alors y a de quoi être fier de vous quand parce que am ngeen talent trop macha allah donc ñu ngi leen di souhaiter bon vent émission baa ngi noonu tudd euh, talent en l'honneur seuls les talents sont l'honneur fii nga xamante ni moom mooy Dakar Net Dev Dieye ak papa ak Toumane ñoom ñoo nekkoon ci caméra beeg montage ak yooyu donc di leen jox rendez-vous dans 15 jours ci seen beneen émission bi nga xamante ni euh, mi ngi tudd euh, talent en l'honneur Ousin moo nekkoon ci présentation bi di bëggee bu baax a baax sama gars yi di leen wax ni kontaan nañ on vous souhaite gërëm merci beaucoup jaajëf <laughs> à la prochaine